it tey dañoo laajoon tey ban ban sentiment nga am ak lan moo la indi ci hôpital bi puisque xam nga ni tey lañ waxoon ni dañ koy dañ koy far tëj. depuis démb la ñu waxoon ne si lañ koy tëj le 14 moom man sama soxna moo fi mooy mooy malade bi moom laa ñëwoon pour seet dañ ko joxoon rendez-vous le le 17 euh, mercredi le 17 loolu boobu moom ñoo ñëw pour laaj fan lañ koy orienté. parce que si télé bi la laa dégg ne dañ koy tëj le 14 te nous na ba moo def na analyse am rendez-vous le 17 fii ci ci Dantec donc euh, moom laa ñëwoon pour euh, slide, mais malheureusement ñëw naa fait moo fi kenn pour que ku ma mën orienter. te ñoom waxuñu la ban hôpital lañ ko war a mën orienter. non non puisque le 17 euh, le. Euh, semaine passée la demoon def xaw chimio lañ koy wax xaw ma fële Philippe Senghor mais après dañ ko wax ne dellu si waat Dantec puisque comme fii la fii la ñëw foofu parce fii la ko waroon defee ñu ne bon hôpital bi xaw ma salle bi mu ko waroon defee dafa am euh, ndoxu taw bi dafa dugg je ne sais pas léegi ñu orienté Philippe Senghor bi mu demee def ko bu pare ñu war a def euh, beneen analyse pour war a ñëwaat fii donc le 17 après bon dimanche laa dégg na dañu tëj hôpital bi ma noonu ñëw pour demander renseignement fan lay fan lay dem exactement après quoi mais. xamoon na tey férié la. booba léegi yan difficulté ngay jànkonteel ci ci dem ak beeg ñëw beeg yooyu ak fi nga dëkk. non commencement bi wax dëgg yàlla ci fii aw ma fi woon difficulté puisque fii la commencé rendez-vous am yi euh, médecin bi bi ko waroon defal intervention ñu orienté ko Pikine fa la ko fekk defal ko intervention muy dem rendez-vous après ñoom ñoo ko orienté waat fii pour que suivi bi mu war ko ñëw defee fii mais bi mu ñëwee après def na analyse def nañ ko analyse. defloo nañ ko simio mu waron eh, mu waron delu ci le 17 ah, waaw puisque médecin bi ko don sur un certain docteur eh, Moussa Diallo ko baax quoi d'ailleurs ku ko taxawu d'ailleurs wa ah, mais sinon à part ça difficulté bi moy comme li bet nañu xamuñu xamuñu fa lañu tek suñu tank tànk rek moy ci problème bi waaw ah, puisque yaakaar naa euh, feebar moom benn affaire la wa fever mom donc lo ci def rek war nga ko war nga ko waaj quoi waaw puisque sinon nit nit ñi doomu aadama yi rek ñoo si loru après donc je je pense pas que la ngay def lu mu mënti mel it dana jar euh, euh, dana mën a récompenser. ban ba yan yan kàddu ngay ngay jox gouvernement bi ak ñi nga xam ni ñoo ŋànk ñi nga xam ni mooy euh, secteur de santé bi ci problème yu mel nii. waaw ñu xam ne rek ne ñoom doomu aadama yi lañ fi nekkal donc lépp lu ñuy def wala di ko yi te muy njariñu doomu aadama yi nañuy jiital rek waxtaan bu ko defee nit ñi bañ di demee ak stress wala fitna donc euh, loolu rek loolu rek laa leen di digal puisque kenn kenn euh, gouverner ñu ay malade ay doomu adama la ñuy euh, la ñuy gouverner te donc feebar metti na metti boo xam ne su nekkee ci yow te waajo waajaluñu la loraa ngi rek lay jur quoi waaw donc mënta am daal nañu bàyyi xel doomu aadama yi daal xam ne Euh, liggéeyaluñu ay mala donc ay doomu aadama la ñuy liggéeyal lu ci lu ñuy mënti def it pour doomu aadama la waaye nañuy jiital waxtaan ak euh, organiser nit ñi ba duñu am fitna quoi sinon bu si fitna jiitoo dootul am njëriñ sëñ ñu ngi lay jaajëfal kon ñu ci kàddu yi xanaa wax dëgg yàlla mu fi laa doon fajoo moom hôpital bi moom bari nañ yërmaane lool nag wax dëgg yàlla moom fi ñëwee jàppale nañ wax dëgg yàlla moom loolu da laa fi xam ci lu baax wax dëgg yàlla sant naa bu baax waaye damaa dégg na ñu ne dañ ko doon maanaam dañ koy xam naa rek milliards fan yi dañ koy defaraat rek xam naa waaw moo tax ma doon ñëw di jël samay di jënd samay samay analyse yooyu waaye faj moom dama cee xaw a néew doole moom wax nga wax nañ ni da am dam ñoo xam dañ leen déplacer yobul leen ci yenn yi barab mais est ce que wax nañ la yow tay fan lañ lay orienter pour pour nga xam fan ngay fajo di continuer say say. ndax saa médecin gisaguma ko gisaguma ko saar gisaguma ko. Hmm. médecin saar moo la doon fa di traité. sama loxo bi wax kon ban problème nga am ci ci sa yaram. loxo bi moy ni loxo bi. da nga defone fracture wala dama daanoon ban ban yëg yeug nga am ci ci li nga xamni dañuy tej hôpital bi nek na lu lu metti ci ci yenn patient yu bari yi nga xamni ñofi doon faccio tay am na am nañ difficulté pour pour xam fa lañuy orienter seen i kii yenn yan yëg yëg nga ci am xanaa bu fu ñu awale rek ñu aw fa bu ñeen awale rek ñu aw fa ba fee ñu fay defaraat hôpital bu baax la mu deug yalla ñam yermane lañ moom lan ngay wax gouvernement bi nga xamni tay ñom ñoo ak ñi nga xam ñoo ngank tay bu euh, walu fajj ni lan nga leen di wax pour yu melni bu amate lan lan lañuy def ak ñu téla communiquer ak euh, ak patient yi lan nga leen di sànni ci gouvernement bi. Ah, ñu jàppale rek nit ñi na ko ñu jappalé nit ñi rek wa ñu jàppale nit ñi rek ci fajj mi waaw ah, man moom su ma rek ma jël na dama téne néew doole mom waaw ah, man moom néew di doole laa loxo bi yàgg na lool. ñu ngi lay ziar di di la laaj sa tur ak lan moo la indi woon ci hôpital bi. waaleykum asalaam man Alimatu Dieng laa tudd dëkk Medina ah hôpital de lu ma fi indi mooy ñëw def sama séance de dialyse parce que malade chronique dialyse laa depuis 14 ans jaar naa privé bi ñëw fii fii sax bu fi ñëwee am na benn instant ba ñuy fay cinquante mille ñëw naa fi ba Macky nu mu koy defee gratuite sant yàlla nag. mais ba ñu déggee affaire aménagement bi boobu ba tey ñun wax dëgg yàlla ñu ngi ñu dalal ñu ngi toog ñu ne dañ ñuy transféré aéroport parce que ñu ngi koy defar te nee nañ vraiment fii moom fii amul hygiène yaa ngi dégg bu tawee man ndox bi yàgg na sotti sama kaw damay jóg te gis nga kati tunélise laa yor te kati tunélise dafa gaaw a fu mu nekk nii damay changé sama kati bi parce que yoruma fistule dama def fistule gis nga. trois fissule toj na man dama sensible mais noonu laa doon jalisé ci taw bi kaas naa ko ba sonn nag xëy na tey la ko yàlla tudd ñun nañu dimbali ngir jëmm rasulullah rek defaral ñu dantek ba ñu mën a dellu parce que malade jalis dafa métti dafa sensible cher na gaa fayatuñu jalis mais jalis du du du du ñëw rek ñu branché la nga dem dafa ànd ak ay médicament te wax dëgg yàlla médicament yi boobu ba tey ñu koy kaas gisaguñu dara waaw xam nga nit tamit du baadoo la mais bu ñu sañoon ñun surtout ñun les jeunes ñun xale yi imagine la nga ne xale amoo doom amoo jëkkër ngay dialyser di dem di ñëw sa jalis da ngay ñëw jalis say médicament man maa ngi jox nañ ma bilan 200000 laa war a fay presque chaque deux mois ma def ay bilan 200000 sama frère moo koy obligé obligé fay sama papa retraité na SDV la nekkoon ba mu fay nekk daan nañ ma jël en charge mais après. comme retraité na jëlatuñ ma en charge fu mu nekk ni yàlla moo ma yor sama frère bi mooy débrouiller di ñëw di ma jox metti na te jalis benn yoon lañ lay jàppale dootuñu la jàppaleeti te gor nag mënul topp à chaque fois di ñaanaatu di ñaanaatu bu yàggee nag euh, bés bu bët bu rusul toj te pourtant ñi dañuy xam ne da ngay jalis da nga koy soxla mais dañuy toog jàpp seen ñaam début bi lañ lay aidé toog jàpp seen ñaam di xaar nga ñaar man du ma genre boobu je préfère sacrifier toog ànd ak yàlla. lan nga lan ngay wax lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo ngànk ci secteur santé bi ci nga xam ne yéen yéenay faral di def ay hémodialyse lan lañ leen war a mën a jàppale ci ay prise en charge ak yu demee noonu. ba dèjà rek ñun li ñu yóbbu fee dafa sori imagine ñu dëkk ay refus ak yooyu dëgg la il ne faut pas être trop bas doole mais dañu mënatul dañu jeexal dañu jeexal. dañoo faya faya faya faya fay peut-être dina tane ci ñi nga xamante ne ñoom yàlla suturaal na leen ñu sëy am na ñoo xam ne fii am dañu teel a sëy am njaboot seen njaboot yi yor leen en charge mais ñun ñi nga xam ne sëyuñu suñu jàng yàqu ñu nekk xale ñuy débrouiller ba pare ñu ñun ay jàmbaar lañu surtout man dama ko saabu du fóot boppam mais dama koy commencé ci man man dama xeex xeex xeex 15 ans pour yegg si fii te da daan métti dama daan feebar ba ñu ne kii sonn na mais parce que bëgg a dund a wér. parce que jalis du la ray tank am nga jalis bi ak accompagnant médicament yi ak analyse parce que ci analyse yi lañu mëna xam lan mo nek exactement sa bir yaram buñ la def le bilan duñu xam lu nek sa bir yaram parce que rien ci ci bir nit la nek bokut ak bob buy metti wala bir buy metti il faut ñu defaral le bilan pour xam lan ak lan te xam ngeen ku jalisul deux jours toxique yi sa yaram te trois fois lañuy def lolou lañu santé permettre yaa dégg ñuy góorgóorlu boo demee da ngay ragal sax lekk combien d'années doo lekk ngay dem nekk xale xamoo kañ la dee yàllaa ko yor man dama dama gis ni jalis rayu dañ ñu jàppalewul rek correctement bu ñu war a jàppale ndax bu ñu jàppale woon correctement tey amaana tey dee bu bëri bu ñuy dégg jalis jalis jalis du doon am mais nag loolu moo amul à 100 pour cent waaw man nag maa ngi sant président parce que def na ko gratuite mais dafa des. ñun dañu war a jàppale suñu ndaw yi jàppale ñu parce que ñun suñu vie presque mun naa ne dafa yàqu dafa yàqu déjà duñu ñu marié ku ñuy takk kenn duñu takk parce que doo gis koo xamante ne day fajoo ay millions nga ñëw di ko takk c'est impossible yaa ngi comprendre kon ñoom ñoo ñu war a jàppale surtout ñun ndaw yi bi ak sant bi ñu ñu laaj la tamit aussi tey sa liggéey tey ñi nga xam ne yow yaa doon liggéey en face fi hôpital Aristide la Dantec depuis ay at yaa ngi fi di daan sa doole di am li ngay am tey ñu ni hôpital bi dañ koy tëj yan yan yan sentiment ak yan difficulté nga ci gis ci fermeture bi. waaleykum salaam wa rahmatulah bi moom hôpital bi mu ngi toj mais njaay bi moom dëgg yàlla moom. lépp dafa wàññeeku quoi amuñu tamit fenn fu ñu mun a dem dudul fii quoi fii lañ am ñu nekk na fi ay dix ans am nay nekk dix ans am nay quinze ans am nay nekk vingt ans fii en tout cas man maa ngi nii dix ans maa ngi fii moom waaw mais njaay bi moom tamit moom ah essay amul client. waaw gis nañ ni doon na dox avant ñuy tëj hôpital bi mais tey gis nañ nii mi ngi mi ngi ñi ngi koy tëj tey instant yan yan yan xalaat ngeen am ak yéen fan ngeen fan ngeen yi dem tamit buñ ko tëjee. ah SAE moom ka ñu xamuñu fu ñu xamuñu fen fu ñu war a dem SAE quoi puisque amuñu beneen place tuddul fii quoi xam nga waaw mais hôpital bi moom gars yi toj na ko mais amul nit quoi. kon liggéey baa ngi sooxe ndànk-ndànk ak biñ ko commencé wax ni dañ koy tej ba léegi. ah depuis ñu commencé ah day ko teg moom depuis semaine bi passé ba léegi nii liggéey bi moom dëgg yàlla moom ñu mu ngi ñëw rek pour daañ suñu doole mais liggéey bi demul bougéwul quoi melul comme avant dafa sax. mais da nga xalaat continuer jaay bi ngay def wala da ngay da ngay res ci da ngay xool leneen loo looy def quoi lu gën a dox en tout cas may xool may fi ba ci kanam rek insha allah après damay xool est ce que damay continuer wala damay bay ut yeneen non rek la mun a demee jërëjëf Mamadou Lamine kon ba beneen tour bi ak sant bi ak euh, ñaata at nga def fii ci hôpital Dantec Abdourahmane Ba ah, yàgg naa fi tudd am naa fi léegi 8 ans mu ngi fii maa ngi jaay fii waaw sant naa yàlla alhamdulilah rabil alamin te may ñaan euh, président Macky ñu accéléré affaire bi mu gën a gaaw ñu jaagatu yi ñu commencé waate jaayam ñu ñaan président Macky Sall yëpp xam na président Macky day liggéey yëpp xam na foofu président Afrique yëpp waxoon nuroon na ak président Macky Sall Afrique yi xam naa avancé na bu yàgg may kontaan naa si président Macky bu baax waaw depuis boobu ñu ngi ni ñu ngi wax ni dañuy tëj hôpital bi bañ waxee ni dañ koy tëj ba léegi ban yëg-yëg nga am par rapport ak sa liggéey. Ah, léegi kay wàññeeku nag léegi client yi léegi wàññeeku na ah. mais alhamdulilah ñaan yàlla ñu yokkal ñu xéewal bi rek waaw loolu la lan nga xalaata def après après ci bi buñ demee ba tëj ko ba fii amatul benn clientèle. Ah, léegi ah ñu ngi xool feneen tamit rek parce que fii léegi. doxul léegi client yi yëpp jaakati bari na client yi yëpp dem na léegi dañ yendu fii du am fi gis benn client léegi waaw mais ah. jërëjëf sëñ